mi yow mi seetaan ñu ngi ñaan rek nga daal di ci seen youtube bi nga xamante moom mooy Tivaouane 24 ngir nga mën di jot ci information yu am solo yi nga xamante moom mooy wàcc fii ci Tivaouane 24 TV jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xamante ni yéen seetaan Tivaouane 24 TV ak Pape Omar Kayre mbokk yi gis ngeen tey ki nga xamante ni moom mooy Serigne Moustapha Sy bu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine doon amal visite ci institut islamique bi nga xamante ni moom la Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine euh, tabaxoon fii ci Tivaouane institut islamique bi tey mu ñëwoon ci doon ci amal ab visite euh, fa tabaarakallah moom ngeen gis noonu moom ak ki nga xamante ni moom mooy directeur école bi. Euh, fa tabarakallahu sëriñ Moustapha Sy Al Amin ñëwoon tey fii ci institut islamique maam Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiallahu anhu ci Tiwaawoon doon amal visite euh, di wër école bi di xoolaat euh, fa tabarakallahu mi ngi noonu Pape Omar Kéré ak Tiwaawoon 24 mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon rek bépp information boo xamante ne dafa jëm ci xadra maam Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy waaye jëm ci diine ji ak l'islam rek boo ñu toppee ci Tiwaawoon 24 TV rek da ngeen ko am mbokk yi mi ngi noonu sëriñ Moustapha Sy Al fii ci institut islamique alxaaji malik si radiallahu anhu tey mu ñëwoon fii doon fii amal visite am fa tabaarakallah ginnaaw bi nga xamante ni sëriñ Abdou làqu na moom mooy taxawu école bi nga xamante ni moom la fi sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine bàyyi jot ay information yu bàyyeeko fii ci Tiwaawan xadra maam Cheikh Seydil Hadji Malick Sy waaye tamit ay émission yoo xamante ni ci wàllu diine ak wàllu islam la aboneel ci seen YouTube bi nga xamante ni moom mooy Tiwaawan 24 jërëjëf